إلي جميعنا صراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سقيم لك الكتاب يا غريب يا مجيد يا من بي لا زمني خير مجيد هب لي وللذين خاتانهم يا هدى دين خير نبلغهم إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمهين جلتنا بك لنا ذنبي يغبطنا من قبلنا يا للسراج المستقيم هب لنا ذنبي يغبطنا من قبلنا bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ñu seqal réew mi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mboolem ñu aju ci fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. gannaaw sëriñ Cheikh ndigal li mu fi bàyyi. gannaaw sëriñ Cheikh ndigal li mu fi bàyyi. turu turu turu turu rek. turu ndigal rek. lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. Tibaawul Xadim. Tibaawul taawun. li taawun. wa tamasuk. wa dara desu ci. nee loolu dara ci. nee dara desu ci. di jiital ci nuyoo bi nag kilifa ak yoon wi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom dolli ko dëgëral. te gàttandu ko ci yan bi ba li mu yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa suñu borom defal ko ci lu kawe njortam fa mag ñi doon nisar yàlla na ko suñu borom yóbbu fa faw ko foofa di yëkkati sunu kàddu jëme ko ci mbooleem ñi nga xamante ne ni ñoo aju ci ittihaadu atbaayil xadim li taawuni wa tamasuki bi diinil qawim ci ñu war a bàyyi xel ci yëngutu bu nekk ci kanam muy ndaje mi ëpp doole ci fédération bi muy neuvième édition congrès ñu di ko waajal ci le 26 ak le 27 ci mois de janvier ci 2019 di ko defee fii ci Touba di ko defee itam daarul man naan kër sëñ Touba goog yi ci darul man naan nu bëgg mboolem ñi nga xamante ne ni ñoom lañ seqal liggéey bi wàccaay yi ñu war a waaj ngir jëm ca ndaje moomee kenn ku nekk tàmbali ko rawatina nag waa Touba gi nga xamante ni nii fii lañ koy defee si kon ñoo ngi soññi mbooleem section yi nga xamante ni nii ñoo aju ci fédération bi tàmbalee ko ci Touba teg ci section Taïf teg ci Mbàkke Bawal teg ci Jurbel teg ci Thiès teg ci Ndakaaru ak Mbuur ak kawlax ak Fatick ak Saint-Louis ak Kébémer ak Louga ak Ngaay ak Gambi ak diaspora bi muy mboolem bànqaas yi ci bokk te nekk ci bitim réew ak fuñ fi mën a nekk moo xam Afrique la moo xam Amérique la moo xam Asie la ñu ngi woo ñëpp ba ci Europe ak Moyen-Orient bi ñëpp bàyyiwuñ kenn ci wàccaay wu ñu war a waaj jëm ci ndaje moom yi ngir objectif yi nga xamante ne ni moom la sëñ Cheikh amoon ci benn la jullit ñi objectif yi nga xamante ni moom la sëñ Cheikh amoon nisar ko ci yoonu maam bi di yoonu Cheikhul Khadim ci luy tax jullit ñi mën a ànd luy tax nu mën a sàppe ci gannaaw sëñ Tuubaa luy tax ñu mën a réaliser objectif yi nga xamante ni moom la mag ñi nisaroon te lépp doon bénéfice ub lislaam moom la yàlla bëgg. li nga xam ne moom la yàlla bëgg. te mun la ñàkk. te mënta ñàkk. di la si yonent bi bëgg. di la yonent bi bëgg. li sëriñ bi bëgg. li sëriñ bi bëgg. mooy nii ngeen nii ngeen aadawoo baaxoo ko. mooy nii ngeen aadawoo baaxoo ko. booloo àndandoo. booloo àndandoo. dëggu. dëggu. pëseefu. pëseefu. amuk dogu. amuk dogu. loolu rek lañ mën laa mas xam ci yéen. nee na loolu rek la mas a xam yàgg na koo xalaat ci yéen itam. te yàgg na koo xalaat ci yéen itam. ci yoon yàgg na koo xemmeem ci yoon bi yëpp. waa jëm ci kon noo ngi soññi mboolem membre yi fuñ fi man di nekk ci wàccaay yi nga xamante ne ni moom la ndaje mi laaj ci teewal seenub liggéey ak seeni xalaat ngir gën koo méngale ak doxin wi nga xamante ne ni moom la borom tëraloon. te tënk ko ci ab règlement intérieur akub statut kon noo ngi bàyyiloo xel ñëpp ñoo ngi bàyyiloo xel it umma islamiya bi nga xam ne ñoom lañ seqal lislaam ji lépp nga xam ne ndajama ndajam lislaam la ndajam la moo xamante ne nii objectif ba mooy tasaare njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci risaala bi ko sun borom yónni woon ci luy benn la jullit ñi ak wéetal yàlla loolu yi rek mooy ndaje mi su ko defee nag mboolem instance yi ko séq ca daje yi nga xamante ne nii ndaje ma laaj na ko balañ ca àgg ñoo ngi soññi ñëpp ñu gën caa taxaw te def ko yitte ba bañ cay jëm noo ngi jégalu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu idi jamiana sirat almustaqim wa bi salim kullana bila saqim daka xitaabi ya xarib ya mujid ya man bi la zamani حمي وللذين خاتانا قوم يا هدى الجيل خير نبلغ إياك نعبد ونستعين فإنك المحمود والمهين جلتنا بك عليك يا رقيب يا من به الملوك النقيب يا للصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا يا للصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا